mbokk internet Medina TV HD nuyu naa leen dalal leen jàmm comme ni ma koy defee saa su nekk rek saa yu ma jàkkaarloowee ak yéen mbégte ak contentement laay am beneen émission li xew émission li xew nag ku ne xam ne ne ndaanaan ku li fadrin yi laay seeti ak domaine boo mën a nekk rek xaar ma xamal ne dinaa ñëw jàkkaarloo ak yow ñu daal di waxtaan ba mu neex ba tax na nag tey maa ngi fii ci Medina dama seet si kenn koo xamante ne neenaa la ndaanaan ji bi actuellement bi troisième vague bi naka nga ko dundee. bon en fait ni ma ko dundee mooy euh, alhamdulilah lay wax na ñëpp ñàkku ji parce que ñàkku bi du question que boo ñàkku dangay ngay dee wala doo dee de da ngay ñàkku vaut mieux prévenir que guérir loolu la tubaab wax olof Njaay ne da ngay jóg ca ba muy teel balaa muy wees nest pas mais bu question que ni vaccin baaxul déedéet vaccin bi baax na danga koy defi. mu dugg sa yaram après nga toog xaar yàlla may rey ku dul buur doo rey du ay ndox ak ay vaccin ak ay kenn xamut nit nan na fi sax asib te deewut kon na gars yi jël seen précaution dem ñaqu yi parce que kenn du la wax ne la dundal dundal moom yàlla rek mooy dundal waaye nag li ki des yaa koy motalil sa bopp mooy sabablu mais nag daal li may mën a wax daal mooy Covid bi moom maas na fépp muy waykat yeeg. kat yeeg ak bu mu nekk ñëpp la dal ñëpp ko yëg alhamdulillah lañuy wax ndax euh, bu fekkonte ni tey gi nii euh, macha allah gëmuñu ko xëy na mun nañ ko doxee woon mënoon nañ ko doxee ak beneen côté mais alhamdulilah man moom xam naa ni moom dund naa ko bu yàgg ndax maa fi woy corona ñëpp yëg ma maa fi woy bu leen bu ñuy xoolee duniyaa xam nga téye ko te du ko bàyyi. ba ma ko wayeeg léegi ñaataat la def def na deux ans ak léegi ñu ngi waaj dugg ci troisième année bi moo tax ñu def troisième vague yàlla nañ ci yàlla musal way woow yàlla yàlla nañ ko fàtte ndax corona dañ ci son yitte yëpp la téye ñëpp la téye muy ma Samba ak muy ma Demba amul kenn ku mu téewul ku ne ku ne deful dara ci yow da ngay wax la neex ndax am na ñu ñoo xam ne leen génnee seen kër ndax Covid 19 léegi nag waxatuñ delta ñëw kon maanaam feebar boo xam la kenn xamu lu muy lu muy nuru jóge fii dem fee léegi nag jóge fii dem fee léegi la tax ñu dem fee lan moo ko waral kon ni war a jël suñuy précaution xam nga pare te xam ni xëj na nattu la mais nag nañ jug sunu bopp. Covid moom noonu rek lañ ko mën dundee fu mu toll nii kenn mënul wax kenn ko corona ak ñàkk corona am na ñoo xam te ne dañuy tëdd sa seen kër sax corona te duñ xam ne corona nañ parce ay der der bu ñuul lañ yor <laughs> roy yomb ñoo rey bu fekkee da ngay xëy rek corona rek corona rey ne nekku ñuul non nekku ñuul li ko rey yombul de barke yàlla dóor ko birig ba mu sedd sax taxul mu dee. macha allah loolu am na solo jibi ñu bëgg a xam ci lan nga nekk parce que dan nañ la gis ci ginnaaw ki nga xamante ne moo di Youssou Ndour nga di ko aaw mais fan yi dañu dañ la xaw a a gis ci ay programme am ba pare jibi yaa ngi liggéey ba léegi ak euh, ki nga xamante ne moo di Bouba Ndour ci lan nga nekk wala da nga beex sa daara actuellement non liggéeyatuma ak Bouba Ndour man liggéeyatuma ak Bouba xëj na sama oncle ñu bari dañuy foog ni ba léegi ñu ngi nekk mais je ne bosse plus avec lui sama contrat moom jeex na bu yàgg xam super étoile nag super étoile la du Youssou Ndour moo ko moom du Ibou Cissé moo ko moom du El Hadj Faye moo ko moom du Mbéjé Faye moo ko moom du Jimi mbay moo ko moom du Assane Thiam moo ko moom xam nga du Thio mbaay super étoile groupe la kër la famille Youssou Ndour moo ko fondé nag macha allah bu njëkkoon étoile xaw ma naka lañ daan wax boobu ay xale lañ woon sax ñun xëy na fekkee ko mais xam tuuti as lu ma ci fekkee. super étoile de Dakar je crois mais après ñu def super étoile tout juste parce que super étoile benn benn club la club xam nañu wax club mu ngi mel ni nga ne Barça soo nee barsa macha allah Messi jaar na fa Thierry Henry jaar na fa ñeneen nag ñeneen nag ñeneen ak ñeneen kon ASC bu mag la club bu mag la. mais est-ce ñu ngi lay woo comme niñ la daan woowee ngay aawu ak yooyu. ba tey man Djiby Seye man kenn du ma ku ma fase baara soo ma Mame Marie amul beneen sët ku dul Youssou man maay sëtaatam keneen ku way ku ne da nga da nga da nga nii ngay def nii déggoo ma de sama yaay dàq way ñëpp Nafi Seck Nafi Seck ko du Seck kenn da ko dàq way mooy taw Mame Marie Sène kenn du koo xam kenn xamu ko. ana na fi tamit sa liggéey ak Bouba Ndour amul lu mu gàllankoor sa carrière parce que ku gis carrière yu Djiby Sèye ni mu demee nga xam ne am na am na lu am na lu la manqué woon am na lu tardel na la quand sa liggéey ak moom. waaw tardel na ma. loolu moom tardel na ma boobu Ndour moom ñëpp xam nañ ni tardel na Djiby Sèye mais man ak sama macha allah alhamdulilah mais dañuy sant yàlla parce que sama mbokk moo ma sañ a def loolu bu doon keneen la duma koy wan ginnaaw boobu Ndour bon en fait jëriñ na ma nag macha allah alhamdulilah maa ngi koy féliciter di ko remercier di ko nuyu passage def na ci man de waaye loolu waaw ah, def na ci man pour nit ñi xëy na peut-être gën ma xam parce que au niveau de comment dirais-je communication beeg bi télévision beeg ñoom seen xaw na ki def tuut xam nga mais euh, li ma li ma li ma man li ma dund ak li ma def ginnaaw yàlla la ma yàlla may man maa ko mu wane. nekkul yow tamit yaa naqaree jàppale ji bi. waaw ah, man dama naqaree jàppale parce que ma tàng xol. man du ma naa tàng xol ak lan. du ma naa dama tàng xol du ma naafiq lu ma bëgg a wax nit ki dama koy wax loolu moom ku ma xam xam ne Djiby Sèye nii la mel man bu dee da ngay dund man sax te li ngay dund ak man amul sens ma romb la du ma la faale xam nañu lu ñuy wax. kon daal pour producteurs yi dégg la ak ñi nga xamante ne ñoo ŋànk musique bi dégg la sa sëy ak Bouba Ndour tas na. yàgg na bu yàgg moo ma ni yàlla rek maa ngi koy nuyu de passage ne na am. ko mel ni yoonte nag ñaawoo am na ba pare. ñaawoo comme. ñaawuma ak ñoom de ñaawuma ak ñoom tey bu ma dul bu ñu jàkkaarloo woon ngay xam ne ñaawuma ak moom man ñaawoo man su ma bëggoon way damay way su ma bëggoon defi lu ma neex dama koy defi de man xaaruma Bouba Ndour wala Youssou Ndour de xaaruma leen dama fa nekk ndax yàlla ndax ay ay fa da deret ak mbokk man Youssou Ndour bu doon bu doon moom rek lay xaar pour pour jëriñu ma xam ne du ma jëriñu man man liggéeyantewuma Youssou Ndour la muy def ak la ma dul def li ma séq ak moom xam lu ma séq ak moom liggéey ak moom mu fay ma ma dem sama yoon Youssou Ndour séqu ma ak moom leneen Bouba Ndour séqu ma ak moom leneen lu dul loolu ñooñu li ma séq ak ñoom liggéey ñu fay ma ma dem su ma liggéey toog ñoom liggéey ak ñeneen loolu kese la. macha allah loolu leer na ñu gis ne artiste Médina yi fi mu toll nii ku ne da nga am foofar ku ne da nga am leader politique boo xam ne ànd ànd ngaa ku nekk rek am nga leader politique boo àndal yow jibi yow jibi ko àndal. Bamba Fall la àndal. dégg nga ma di. monsieur le maire. monsieur le maire man xaw ma ku dul yow ñun bi ñu nekkee Medina juddoo fi màggee fi ba yoroo fi bu njëkkoon bu ñu daan football su wee ñooy billaay ñooy teggee kook yu kenn xamut nga ñëw fi def fi pavage yeeg gis nga jardin bi toog bu njëkkoon ay wéyu ñoo fi doon toog ay waga tey gii nii mu doon loo xamante ni ku ne sañ nga fee toog di waxtaan di couplé di def la la saf alhamdulilah gàcce ngalaama monsieur le maire Bamba Fall yow laa àndal muy tey muy suba te ku la xarab ma xarab ko. <laughs> jibi da nga engagé yow waaye yow ay yow yow 9 yi nga xamante ne Bamba Fall def na ko fii tey ji yan yan yan réalisation Bamba nga gis ci 9 ans yi. bari na yow Bamba Fall avant muy sax don maire ñun Medina fii ñun ñoo ñun ñoo far sax biram saasum si biram saasum si ñun ñoo ko fal. Birame Saasum si xamul fi xamul feneen fudul fii fii la dëkk kon Bamba Fall bu jëlee place biram Saasum si toog fa def li mu def. moo tax la fi def lan la fi def. xoolal li mu def. du man maay xool man nekk ma fi pour xool li Bamba Fall def yow mi nga xamante ne yaa far ci moom nekk artiste am nekk waykatam yow yaay wax li nga xamante ne loolu la fi def. waaye léegi xoolal fi ñu toog bu ñu dëkkoon na ma yàlla jéggal gars yi dañu fi daan toog di di jàll xam lu ñuy wax jàll fi daan toog di jàll. dëggoo mu de léegi def na ko ku ne bëgg na dugg ndax bu njëkkoon bii benn genre la woon ñëpp ko géddoon ndax dañ naan wax naan bandi yi ñoo fi toog ak sàcc yeeg ñoom seen ak ñeeg naa Bamba fa ñëw defal ko ba mu rafet te ku sañ a toog fii ba nga sañ fi toog di tourner sax kon c'est parce que gis ne yow porteur de voix nga te da am ay fans fu nekk est-ce que far bi nga xamante ne far nga ko ci Bamba Fall du am lu la yàqal ci yeneen camp politique yi. nga baal ma ci sa ci moo saagu ma nag nga baal ma. je m'en fous man Macky Sall defaluma dara man ma Macky man maa woyal ba mu falu man maa doon way doon rey man la ñu njëkk a rey ndax Youssou Ndour moo ma jël jiital ma dugal ma fu nekk ci Sénégal. kon tey jii heure bi waroon naa tabax immeuble bu fekk bu fekkonte ni rek noonu noonu kon damay tabax Macky Sall def lu ma dara lu ma defal Macky Sall xamuma xamu lu ma xamee xanaa mu may gis télé wala ñu naan jarbaatu Youssou bi nii ak naa léegi man xam nga jarbaatu kan laa ma ñuq bajaan man doontuma jarbaatu kenn <laughs> macha allah loolu am na solo <laughs> jibi ñu gis ne Bamba Fall am na artistes yoo xamante ne dañuy ànd ak moom mais fu mu nekk wala fu mu am programme ñu gis ko ci seeni wet ku ci mel ni Birahim bokk na fi nga xamante ne moo di ci Bamba Fall mais yow duñ la gis nga fës ci ay activité Bamba Fall lu waral loolu. yii dama ji fës nag waaye man maay koo xamante ni nee naa la rëyu ma nag sincèrement rëyu ma wax dëgg yàlla wàccee naa sama bopp oyof naa ba su may kaf sax da nga naan ku ñàkk fayda la te am naa caractère boo xamante ni man kenn yabu ma te du ma ne mukk damay ñaak fayda mukk du ma mës a fayda mais ay Pape Birahim Pape Birahim dem ba xam bu baax kan mooy Bamba Fall Pape Birahim grand la fii quoi Médina monument la fi mën naa ne ni ngay dégg Youssou Ndour Sénégal mën naa ne Médina Pape Birahim monument la fi parce que dafa boole Gueule Tapée ak Médina Fass Colobane nag lépp mais mu woy from dina mais teewul ñooñu ñëpp dañ koy bëggee mais kooku macha allah alhamdulilah bu doon tricheur du ànd ak Bamba Fall. bamba gis ne bëri dañuy dal ci ginnaaw bamba ki nga xamante ne moo di bamba Fall ku def vidéo rek bamba Fall wala nga kii si naka nga gisee ah, li activiste yooyu li xamante ne ñu ngi koy dal la fois passée jël naa ki nga xamante ne moo di Balla juuf mu ne monsieur le maire en 9 ans deful dara biir Médina lu dul ñu koy konteel ay kër lan ngay tontu ci loolu yow mi nga xamante ne yaa fax ci bamba Fall. non Balla moom seetaan na affaire bi waaye dafa juum Balla dafa juum parce que. Bamba Fall ku ko seet si mu defal la teraanga ñëpp xam nañ ni Bamba Fall dimbalaate la fi la fi nekkee xëj na peut-être bon en fait xëj na dañ ko ngemb wala pour mu xarab mais Balla dafa juum parce que warul wax ci yooyu moom mbër la man waykat la xam nga tey du ma xarab kenn mais am naa droit wax ci Bamba am naa droit tagg Bamba am naa droit wax ci sama nit mais pas ma xarab la dafa juum. xëj na peut-être li may li may bañ a wax mooy li ñu naan mbër yi amuñu xel loolu yàgg nañ ko dégg te mbër yi ñoo gën ñoo waroon doon ñoo xamante ni ñoo waroon doon njëkk nekk porte de voix à part même bu à part woykat yi parce que mbër léegi da gis xale bu ndaw sax di bëri di fo fooyoo bëri kon dem na ba sunu sunu sunu sunu sport national la comprendre nga léegi bëri nekkatul sport national. bàyyi rafetal bi Balla Diouf dafa ne Bamba Fall liggéeyu fi dara lu dul di jënd ay kër plus de cent million waaw léegi déglu moom du garaaw dafa juum waa moom Balla Diouf moom dama koy laaj moom lan la fi def lan la fi def def fi dara Balla Diouf def fi dara Balla man maa yow boo fi defoon dara doo xarab waa kañam guy geeg yu kenn xamul ak ñoom fu ñu koy waxatee di waa parcelles ñoom faal ñoom morloog yu kenn xamul gaynde xam naa ni mbër nga gaynde ga mais bàyyi de xarab loolu bokkul ci sa ci sa yow mbër nga da nga war a porter voie di wax nit ñi nii ak nii ak nii mais bal xarap yow bokkoo ci loolu ndax bu ëllëgee wala wala bokk li mu defal euh, Maodo moo tax a ah, bon ko waaw wanu leen ko ko de dem leen ngeen toog ngeen jàpp seen waajee wala ngeen téye ko macha allah. ku ne xam na ne élection locale yi daanaka li ci des mu ñëw yegg si bareetul lan ngay waajal Bamba Fall. waaw ah, Bamba man bokkuma ak euh, xëñ na peut-être euh, ñiy way single pour profito man Bamba bi may ànd ak moom depuis sama soirée yu njëkk yi la ma koy def en face du Seck mu jënd bii yëpp te du ci wane boppam du du wane du du ci moom moom noonu la mel moog sama nijaay nag ñoo bokkoon classe. mais Bamba xanaa xam nga Bamba pour ma gisanteeg moom sax bëriwul bariwut mais li mu liggéey li mu def Médina moo tax ma fonk ko parce que Médina da nga doon dox wala tali yi nii xëy na tali mairie maire de Dakar d'accord mais moom moo moom moo dem revendiquer waax tali yi baax bu njëkkoon dañ naan football suñuy suñuy wee di teggee ko kenn xamul alhamdulilah Bamba Fall ñëw pavé yeeg ñu kenn xamul ñëw xam le meilleur maire à dakaar mi ngi noonu mooy Bamba Fall. sa wax. le meilleur maire wax man. Ah, parce que da far Bamba Fall nga bokk. faruma de. billahi wallahi faruma du far de Bamba bu liggéeyul woon dara nga xam ne man maa mën a xarab faruma de dafa liggéey Olof Ndiaye dafa ne moo fi def lu tax ñu naan wéew après mu nga naan wéew wéew kon jeex na. jibi projet yi lan la ak ci loo nekk ñu gis la àndoon ak sa rakk Youssou Ndiaye ngeen def loo xamante ne <laughs> waaw projet yi projet yi fu mu toll waxtaan bi neex na lool mais émission bàyyi xëttu jëm ci jeex projet yi lan la non projet yi mi ngi fii alhamdulilah xam naa ne du yàgg dara incha allahu rabi du yàgg dara xam naa léegi ma voyagé bu soobee suñu borom mais Youssou Ndiaye moom dafa di koo xamante ni kenn mënu ko changer ci man kenn mënu ko remplacer ndax euh, xëj na bi bi mu gën a nekk xale la ma topp ba tey kon tey Youssou njaay bu bëggee def dara tamit te ñu naan ah gars yi ngi def dof-dof lu ñu ne Youssou Ndiaye dafa dof te Youssou dofu Youssou lu mu bëgg liggéey di jëndi ko de lu mu bëgg a def def ko moo tax it bës la fu mu toll nii Youssou Ndiaye nga toog senegal ak Medina mais leen rek moom ma ci naqari dina na fàtt na way waaw yooyu lay def ak yeneen jibi ñu bàyyi la nga tàggatoo waxtaan bi neex na lool waaye émission baa ngi xëccu jëm ci jeex ñu bàyyi la nga tàggatoo ak nga xamante ne ñoo la doon seetaan à travers Medina TV HD. waaw Medina TV moom ñoom depuis bi bi ñuy def seen yi ñuy def nii macha allah alhamdulilah ñu ngi leen di gis naa ah, dèjà te te site la boo xamante ni damay ñaan yàlla mu am rajo am télé. damay ñaan yàlla moom rajo am jox dig daje beneen yoon wante mënu ma tëj émission bi te remercier ma ki nga xamante mooy jaar ci habillement bi mu di Aziz borom Padois numéro am di 77 959 86 43 waaye awa baan na kooku nekk fële ca mairie Médina nee naa la yow sama sœur nga sama doomu ndey nga sama lépp nga tey émission bi yow mii laa ko may ndax tey ji su ma toogee ci bërëb bi nga xamante ne fii Bamba Fall moo ko sanc yoon la ma nuyu la waaye di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm technicien bi nga xamante ne moom laa àndaloon tey buurub Medina ay bamba moori ma ca ndar moori ma ca waalo ku sa yaay baax sa baay baax boo juddoo doo mën bon li ñuy toppee doomi garmi yaa ngi ci yow faal da ngay dimbalaatey neew gi duul yi xamenu lay faal madame Camaraay ak asooy madame la présidente maa kër waa kër Bamba Fall ñëpp bàyyiwuma kenn taxaw Bamba Fall mooy sunu yite xam nga du ma bëggee wax day waa tamit ah ah. producteurs yi daw si leen ñëw dégg nga baat bi macha allah. <laughs> kooku moo di woon Djiby Seye ñu amoon mbégte ak contentement dalal ko beneen yoon ak beneen numéro li xew kenn yëpp yëpp